day ñu ngi dalal kilifa gu mag gi mu xam mooy sëriñ Malick Gaye di directeur général AGETIP ànd ak équipe bi nga xamante moom lay liggéeyandool ngir ñu ñëw waxtaan leeral commission ak le comité de fiscalité locale ñi nga xamante ni moo jëm ci xaalisu PACASEN boobu ak fi ko bëgg def ak yan projet lañ xalaat lañ tànnoon ba war ko fa def li tànn yëpp doon yu am solo bokk na ci marché Mbacké bokk na ci centre commercial bokk na ci abattoir bokk na ci courant bi ñu war a yokkaat ci biir dëkk bi bokk na ci ndox mi bokk na ci théâtre de verdure bi ñu war a def bokk na ci bibliothèque municipale bu war a ànd ay salle de conférence ak ay bureau pour jeunesse bi donc ak yeneen programme yoo xam ne mi ngi ci biir yu bari yoo xam bi ñu ko xaymaa gis nañu ne lii li mairie bi mënulul boppam état ñëw na wuutu ko defal PACASEN bi it di lu am solo ndax gis-gisu président de la république ndax xam na ne communes yi dañoo néew doole te li ñu bëgg lépp mënuluñ ko seen bopp. moo tax nag ci cadre mise en œuvre acte trois de la décentralisation ñu créé mécanisme bi pour mën a jàppale maire yi pour ñu gën a am ay moyens infra euh, ay moyens dañ ko investir ci infrastructure marchand yoo xam day génne xaalis pour que ñu ëllëg si biir ñu mën a demal seen bopp ci yeneen investissement yi loolu nag di xalaat bu rafet ñu ciy sant kilifa yëpp rawatina njiiti réew mi nga xamante moom xalaat bi muy le président de la république Macky Sall kon nag euh, intercommission bi daje nañu moom le directeur général de l'AGETIP jox na information yi mu ci war a jox yëpp kon nag li ci des mooy incha allahu rabbi euh, ñu signé convention yi te signé nañ ko pare. kon ñu ngi xaar études yi ñëw ñu ngi def une général woo askan wi yëpp ñëw toog ñu xool li nga xamante ni moom la waxante woon ak AGETIP ne lii lañ bëgg a def pour askanu Mbàkke bu defee incha allah ñu ñu buñ amee luñ ci yokk yokk ci suñ ko dee wéyal ñu wéyal ko bu ko defee gaaw jublu ci liggéey bi mën a jublu ci réalisation tali yi nga xamante ni bëgg nañ ko ci Mbàkke état du Sénégal euh, joxoon na ndigal njiitu réew mi euh, waa Promoville pour ñu def juróomi kilomètre tali ci biir dëkk bi daaw lañ ko tàmbali mu amoon ay rëq-rëq wante incha allah programme ci budget ren bi pour man koo dérouler moo yenn programme yi xam moom la ñuy def Touba ñu yaakaar jàpp nañ moom la ñu waree boole pour mën koo dérouler li ci nekk ci hôtel de ville bi. depuis daaw lañ ko waroon a tàmbali mais amoon na ay xat-xat ay jafe-jafe ci AGETIP comme ni ko directeur général waxee ba jàpp na ne ren incha allahu rabbi xat-xat yëpp dana saafaraw ñu mën koo tàmbali liggéey ko liggéey bu rafet hôtel de ville bu méngoo ak euh, jëmmi Mbacké loolu lépp doon tawfeex ak naataange pour Mbacké